أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci qisasul anbiya ñu toll tey ba tey ci histoire yonent yàlla yunus alayhi salaam ci kàttanu borom bi tey ñu ngi jël qissatuhu ma al gulaami histoire am bi dox digganteem ak xale ba sunu yonent alayhi salaatu wasalaam mu ñuy xabaar ne yunus alayhi salaam bi ko yàlla subhanahu wa taala génnee ci biir jën ba génne ko ci biir géej ga ci ñetti lëndëm lëndëmu guddi lëndëmu géej lëndëmu biiru jën daal di koy sànni ci tefesu géej ga borom bi subhanahu wa taala saxalal ko fa ab garab mu ci lekk di ci keru dafa am diir bi mu demee ba tane ba wér ba mun a dox yàlla subhanahu wa taala daal di koy nattu garab googu yàlla doon ko def mu koy fajoo di ci noppalu di ci dund garab ga daal di wow bi garab gi wowee moom yonent yàlla yunus alayhi salaam mu jooy jooy yu métti fa baka alayha nabiyullah bi mu jooyee moom yunus yàlla daal di koy waxyu daal di koy dee wax ak moom yàlla ne ko yow yunus naka ngay jooyee ci garab gu faatu te jooyoo ci junni nit téeméeri junni nit wala lu ko ëpp yu naroon dee dem safara yenent bi moo ñu nettali hadis bi ne ko yàlla da ko ne a tabki ala sajaratin an yabisat wala tabki ala mi'ati alfin aw yazidun aratta an tuhlikahum waaw yow yunus nooy jooyee ci garab gu wow garab gu dee jooyoo ci téeméeri junni nit ñoo xam ne dañoo naroon dee te yaa leen di alak ah mu xam ne kon mbir mi nattu yàlla la nekkatul ay caaxaan léegi lan mooy pexe lan mooy programme am ginnaaw yaramam bi feebaroon wér na mën naa dox mën naa yëngatu mu commencé di doxantu nag ci tefesu géej gi di dugg ci xur yi di yéeg ci montagne yi wàcc benn bis ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala noonu muy doxantoo rek fa wajada gulaaman yara xanaman mu fekk benn xale buy sàmm ay gàtt fa saalahu min ayil aqwaami huwa mu ne ko yow foo bàyyee ko ci ban xeet nga bokk ci ay nit yan nit nga jóge fa qaala innahu min qawmi yunus mu ne ko man de maa ngi bokk ci nit yonent yàlla yunus kan mooy yunus kan mooy yunus mooy moom xale bi ne ko man maa ngi bokk ci ñooñu fa talaba minhu an yusallima ala qawmi mu ne ko boo demee boo ñibbee dëkk ba nanga ma leen waxal ne yunus mu ngi leen di nuyu wa yuxbiruhum bi annahu laqiya yunus boo demee nga ni leen yonent boobu yàlla yónni woon ci yéen tudd yunus daje naag moom ah xale bi moom wa kaana alxulaamu xasifan nabihan aliman bima alayhi qawmuhu fi saani alkaazib xale ba nuróowul ak sunu xale tey yii moom xale boobu ku yeewu woon la ku muusoon la ku xamoon dëgg-dëgg lan mooy mbiru fenkat soo fenee ci dëkk bi yan loi ban sharia mooy dal sa kaw bi loolu amee moom xale bi comme yunus gis na benn waay waa ji ne ko maa yunus boo demee dëkk ba nag ma nuyul waa dëkk bi nga ni leen gis naa yunus te moom xale bi mu xam ne su fenee xam na li ko ciy fekk fa qaala li yunus moom xale bi mu ne yunus in takun yunus faqad taalamu annahu man kadaba wa lam yakun lahu bayina qutila mu ne ko bu dee yow mi yaay yunus taxaw sama kanam xam nga luwaa yi ma bàyyi ca dëkk ba mooy ku fen dañ koy rey gis ngeen sharia bu nekk yonent bu yàlla yónni bu nekk rek moom shariaam bu ñëwee day wuteeg beneen sharia ñun suñu sharia ku fen mooy ah boo tubee ñu baal la wala nga def ah nga tuub ñii ñoom seen sharia ku fen dan lay rey mu ne ko yow xam nga ku fen dan lay rey fa man yashhadu lii kan moo may seedeel na yow yaay yunus yan preuve moo may wan na yow yaay yunus qaala tashhadu laka hadihi sajara mu ne ko garab gi moo lay seedeel ne maay yunus wa hadihi albuqa ak place bii nu nekk bu fekkee am nga problème garab gi buñ ko laajee dina seede place bii nu nekk buñ ko laajee dina seede fa qaala alxulaamu li yunus muruhuma an yashhada ba tey xale bi bàyyiwu ko de xale bi ne ko ba tey bu dee yaa yunus wax leen ñu seede léegi-léegi balaa may dem ci nit ñi wax leen rek ñëw seede jarul balaa may bougé dem di waxi nit ñi gis naa yunus mu ngi leen di nuyu wax leen léegi léegi rek fii mën nañu seede fa qaala lahuma yunus ida jaacakuma hada algulaam fashhaduu lahu yunus ne ne garab gi ak place bi xale bi bis bu demee dëkk ba am problème ñëw fii di laaj di leen seedeloo yow garab gi yow place bi na ngeen seede ne gis ngeen yunus fi xale bi taxaw rek mu dégg garab gi ak place bi daan ne waaw waaw naam qaalataa naam ñu ne waaw waaw ah xale bi daal di yéemu nag xam ne kon daje naag ponkal bi kon waajaa ngi nii wa hada kulluhu nag bi qudratillahi azza wa jalla lii lépp nag mbokk yi nekkul mën-mënu yunus waaye ci kàttanu borom bi asamaan ak suuf la xëy na nit dina wax ne waaw naka la garab di waxee wala naka la place di waxee léegi kay gis nañ lu gën a doy waar lool weñ day wax wala gis leen weñ bi weñ waxuma la muy wax mais day déplacé wu gis leen weñ di naaw weñ di naaw wala mës nga gis weñ di naaw mës nga gis weñ laaw de waxuma weñ yi naaw de lu nga gis weñ di naaw avion weñ la luñ xamoon ci luy naaw nu muy def day lem laaf yi loolu moo koy may puissance mais xoolal weñ moom dafa tàllalu lii rek di dem di naaw kon fu yàlla defee ay kéemtaan ay weñ di naaw ay weñ di féey ay weñ di wax est-ce que kon lu tooy lu am ruu mun munul wax garab dafa am ruu di day dund day juddu day dund day màgg day dee loolu moo tax borom xam-xam bi bi ñu ko laajee benn question pour daaneel ko benn waaye dafa dégg benn borom xam-xam ngi dëkk bële loo ko laaj mu tontu waa ji ne wallaay dinaa ko fenloo ñoo ko demal mu ñëw ne ko sama benn mbokk da doon tukki bi mu demee ba ci àll bi kenn xamatul ci moom dara ñenn ñi ne dañ koo soppi xeer ñenn ñi ne dañ koo soppi garab léegi luy àtteem islaam li ñu wóor moom mooy nekkatul nit ñii dañu ne garab la ñii ne xeer la léegi lan mooy àtte bi ci lislaam allahu akbar borom xam-xam bi ne leen bu dee garab lañ ko soppi kon mi ngi dund bu dee xeer lañ ko soppi faatu na mu ne ko foo ko teg mu ne ko xeer jaamit la dafa dund dafa dee du dund amuru amma garab nag mu ngi dund gis nga moo tax boroom xam-xam yal na leen yàlla fayal lu ne la ni jàng lii yëpp nag ci kàttanu yàlla la fa raja al gulaam ila qawmi xale ba daal di bàyyee ko gis nga bi ko bi mu gisee kéemtaan yooyu dafa dellu ci ay nitam moom xale bi wa kaana lahu ixwa lahum jaah wa makaan dafa bokk ci famille boo xam ne dañoo am daraja waaye dañoo am place bu kawe ci société boobu mu nekkoon société yonent yàlla yunus dëkk boobu tudd Ninawa amoon nañ kattan amoon nañ doole seen famille ku ci bokk kenn du la laal ndax ñoom dañoo am doole bi mu déparé ba ci dëkk bi mu ne leen dama bëgg a dem ci buur bi ñu ne ko lu xew mu ne bañ egg su ngeen bëggee xam lu xew da ngeen may gunge ba ma yegg ah ñu escorté ko bi mu ñëwee ba ci buur bi wa ballagahu bi liqaa'ihi bi yunus mu ne ko man dey dama am xabaar bu wér ne yonent boobu tudd yunus faatuwul gis naa ko yéen nag da ngeen jàpp ne faatu na lan moo tax nit ñi jàpp ne Yunus dafa faatu lu tax parce que dañ ko sànni ci biir biñ ko sànni ci biir géej aussi ñu gis jën war na ko ah boo gisoon sa mbokk ñu dugal ko ci bato yóbbu ko ba diggi géej sànni ko loolu rek nga gis nga toog gisatoo ko looy wax boo gisee jën di ko wan nag kon yow loolu lu ñu lay wax moo tax ñoom amatuñu woon confiance ne Yunus mu ngi dund dee na xale bi mu ñëwee lim leen wax mooy am naa xabaar bu leer na Yunus deewul buur bi ne ko lan mu ne ko gis naa Yunus buur bi ne yóbbu leen kii ngeen rey ko lu tax loi bi mooy ku fen dañ lay rey ñoom jàpp nañ day fen mu ne leen ah da ngeen may rey tey laaju leen ma samay dalil samay preuve ñu ne ko da ngay fen mais est ce que lan moo leen doon ne damay fen kan ngeen laaj ñu ne ah wax na dëgg de xaar leen ñu ne ko waa léegi luy wane ne deewul mu ne topp leen ma buur bi daal di jël ay conseil am yi sës ci moom ne ànd leen ak moom ñooñu daal di koy topp biñ ñëwee ba ci garab ga mais laaj leen garab gi ndax Yunus mu ngi dund wala dundul ndeysaan axbaral gulaam annahu dalilun yadullu ala sidqihi xale bi won na leen kiimtaan lu leer luy wone ne yunus mi ngi dund fa arsala maahu baadu xaasatihi buur bi daal di koy booleeg ay conseil am fa lamma wasalu ila sajara bañ demee bay gi ci garab gi wal buqa ak barab ba place ba allati amarahuma yunus bi shahadati lahu place bi nga xam ne yunus jox na ko ndigal ne ko bu gaa yi ñëwee di laaj seede leen xaatabahuma qailan moom xale bi mu wax ak garab gi wax ak place bi mu ne maa ngi leen de seedeloo yàlla yunus mi ngi dund wala dundul yéen ñaar ñii yow garab gi yow place bi gis ngeen yunus wala gisu leen ko qaalata naam ñu ne waaw waaw yunus kay ngi dund ah bi loolu amee rek ñu xam ne mbir am na ñu tiit li ñu njëkk a def mooy dañoo tiit ndax seen dund musuñu gis lii ñu départ fa raja'u xaifin wajilin dañoo dellu ca buur ba boole ñaari mbir dañoo tiit jàq lu tax garab guy wax du sunna na du yo du yoon kenn mus ko gis place buy wax kenn mus ko gis moo tax ñu tiit jàq biñ demee ñu wax ko buur bi axbarul malik bima sami'uhu ca la ñu dégg ñu wax ko xabaar bi fa ma kaana min almaliki illa annahu nazala ala kursiyihi buur bi mu déggee xabaar bi li mu njëkk a def allahu akbar mooy kon man place bi ma toog yelloowuma ko mu daal di wàcc fauteuil bi nekkatul buur mu jël xale bi ne ko yow yaa yow buur nguur gi kaay yow yaa yayoo nekk buur ci xeet wi man yayoowuma place bi wa amsaka bi yadihi wa amsaka bi yadi zalika alxulaam wa ajlasahu malikan fi makaanihi mu jël xale bi wàcc trône bi mu toogoon mu jël xale bi jàpp ci loxoom yëkkati ko ba ci kaw daal di koy teg daal di simmi ndëppal buur bi samp ko ko ne ko yow yaa fi yey fa qaala lahu anta axaqu bi haza almakan minni mu ne ko yow yaa ma gën a yey ci place bi allahu akbar moo tax ndeke nguur du lu ñuy xëccoo léegi rek la nit ñi di xëccoo nguur parce que xamuñu léegi rek la nit di jël oto yéeg def ci essence wala gasoil wala wala di wër ci nit ñi naan fal leen ma bi àdduna yàqoo mais ñi xam nguur dëgg buñ leen daan fal dañuy bañ lànk ba tëdd ci naaj bi bañ parce que xam nañ li nekk ci nguur moo tax gis nga kii bi mu gisee lii mu ne kon man waruma nekk buur mu daal di wàcc faqad axbara rasuluna sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ñu xabaar mu ne anna zalika alxulaam hakama arbaina sana indahum xale boobu yàlla màggaloo na ko mu toog ci sées boobu ci réew moomu ci xeet boobu atte leen 40 ans xale boobu atte na dëkk boobu 40 ans mu nekk seen buur aqaama lahum fiha amrahum mu jubanti ci seeni mbir wa salaha fiha xaalahum mu baaxalaat lépp lu yàqu woon mu jubanti leen mu defar leen ci biir ak ci biti defar seen économique waaye defar seeni jikko wallazi yazharu anna yunus innama amara alxulaam bisalaami ala qawmihi fa axbarahum bi hayaatihi mu ne bu ngeen seetloo ci mbiru yunus da ngeen gis ne moom moo wax xale bi boo demee nga nuyul ma waa dëkk ba nga yëgal leen ne maa ngi dund nga yëgal leen ne dara daluma moom moo sàkk aussi ci place bi na ko seede moo sàkk ci garab gi aussi nañu seede loolu lépp pour lan la li yadulla qawmahu ala annahu lam yakzib alayhim pour mu won waa dëkk ba ne man fenuma de ndax dama leen waxoon ne bu ngeen ma gëmul da ngeen alku di ngeen dee ma dem mer xaaruma ndigalul yàlla yàlla mere ma ñu s- ma dugg gaal ñu sànni ma ci biir géej jën won ma fenu ma de pour mbugal mi day wàcc seen kaw yéen nag da ngeen gis ne mbugal mi dafa yéex déedéet waaye yàlla moo ko téye wa anna kullu ma kaana innama kaana bi amrillah mbir yooyu am yépp yunus dugg gaal gaal gi di waaj a lab ñenn ñi dañu ne gaal gi dafa bëgg a diig ndax dafa fees ñenn ñi ne déedéet gaal gi da doon def ndeyjoor ak càmmoñ naan nii mënul dem bu nee nii nit ñi wàcc côté bi bu nit ñi dawaatee nii mu wàcc ñu jékki-jékki ñu ne gaal gi am na fi ku fi tooñ boroomam ñu def ñetti yoon tegante bant yëf yi di dal ci kawam gaay ne ko yow la ñu ne ñu ne déedéet kii ku baax la kii yonent la ñu defaat deuxième fois mu dal ci kawam ñu ne déedéet dañoo juum ñu defaat troisième fois mu dal ci kawam mu daal di simmeeku gaay tëmbal ko ci biir géej gi loolu yëpp ci ndigalu yàlla la woon ci kàttanu yàlla ndax yàlla dafa am lu mu namm dafa am lu mu bëgg a wane place bi seede ko ci ndigalu xale bi dem feeñal ko loolu yëpp ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala la pour yàlla wane ne yunus mi ci dëgg la nekk waaye nekkul kuy feñ bi loolu amee mbokk yi léegi lan moo des mooy lënt lënt muuraay bi doxoon diggante yunus ak ay mbokkam yàlla muri ko muri bi mooy lan wa arsalnaahu ila miatu alfin aw yazidun yàlla ne yónni woon naa ko moom yunus ci suratu safaat aya 147 aya 148 yàlla mu ne wa arsalnaahu yónni naa ko moom yunus ila miati alfin aw yazidun yónni naa ko ci xeet woo xam ne ci société boo xam ne tonn toll nañ ci téeméeri junni nit ak lu ko ëpp tuuti fa amanu ñoom ñëpp ñu daal di gëm fa mattaanaahum ilahin yàlla nee na ma bàyyi leen ñuy bànneexu ba seen deejot amul benn xeet ci kaw suuf bu mbugal tiim waroon wàcc seen kaw yàlla téye ko lu dul nitu yunus aleykum salaam wa rahmatullah nitu yunus dong ñoo am seen yonent ñaan leen yàlla ne yàlla alag leen yàlla téye yëfi ñeneen ñu dul yunus yàlla alag na leen ba leen seen yonent ñaanee lan moo tax nag yàlla subhanahu wa taala yunus ñaan yàlla téye ñaan bi mooy bi mu ñaanee dafa dafa dafa dafa dafa toogul muñ waaw fii dañ fiy jàng lu bare bari dañ fi jàng ne yàlla programme am la yor du lu neex nit du lu neex sàmba du lu neex demba moom yunus ñaan na yàlla na alak ñii yàlla bañ mu mer yàlla di ko xamal ne yonent du mer ku am benn cër ci yàlla waroo mer say mbir bopp waaye booy mer yàlla war a tax yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dem na xeex uhud ñu damm bëñam daal di koy dóor mu daanu casque bi mu soloon daal di tànc bopp bi ba bopp bi toj ñu xuri ay óomam ñu rey musab ibn umayr keroog ki ci gën a rëy ki ñu rey keroog hamza ibnu abdul muttalib ñu dagg nopp yi ñaar yëpp luqati bët yi dagg bakkan yi dagg tuñ yi dagg làmmiñ bi dagg awra bi xar dënn bi génne xol bi yonent bi mu tiimee Hamza ñu def ko jëf ju mel noonu dafa ne bu ma jàppee yéeféer yi dinaa ci def juróom-ñaar fukki nit dinaa leen def comme nii yàlla ne ko laysa laysa laka laysa laka min al amri shay'in mbir mi du sa mbir de ñi def lii sax bu nu tuubee ma baal leen laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir de pourquoi ngay def ni juróom-ñaar fukk xanaa xamoo ki def lii sax su tuubee ma baal ko gis nga kon ndeke diine du programme nit ñi du lii ngeen di gis diine lu yàlla wax la ak yàlla li mu wàcce ak yàlla li mu dogal loolu la du lu nit ñi di gëm di dund du loolu mooy diine diine du sàmba ak demba wala diw ak diw ñoo jur ñii ñii lu leen neex def déedéet xoolal yonent yi yàlla day tëral programme am yonent yi di ci génn yàlla di leen teg yar ana baayu ibrahim papa ibrahima anamu mi ngi safara ana jabaru nuux mi ngi safara ana doomu nuux keroog bi yàlla di alak àdduna nuux yàlla ne nuux yettal gaal wasnail fulka bi aayunina dafaral gaal nuux defar gaal gi ba pare yàlla mu ne ko jëlal xeet yi bu nekk dugal ci ñaar góor ak jigéen nga jël ñi la gëm nit ñi nga xam ne tuuti lañ benn kër benn famille nga dugal leen ci gaal gi nu daal di dugal fi muy dugal rabu àll yeeg nit ñi mu seen doomam ndeysaan doomam waxuma waxuma rakkam de waxuma waxuma waxuma lan laa wax la seen doomam mu ne ko yaa bunayya irkab maana ay waaye yéegal ànd ak ñun doom ji ne ko papa sa awi ila jabalin yaasimu nii dinaa yéeg ci montagne be dana ma musal ci ndox mi ci gàttal loolu passé woon nañ ko mu ngi ci qasasul anbiya yu mujj yi ku bëgg a dégluwaat nga delluwaat foofu almuhim keroog nu munul musal doomam bi ndox mi ñëwee yàlla daf ko alak te yonent la yàlla ko yónni wala ah waaw fu ñuy alage jabaru yonent di fa alage baayu yonent di fa alage ay doomu yonent yonent laa wax de ah bu fa jabaru sëriñ teewee ak jabaru doomu sëriñ bu jaamul yàlla nag ndax ñooñu mun nañ ci dara kon dañuy forek Sénégal dañuy forek di caaxaan kii doomu diw la wala diw moo ko jur wala diw nangam la wala diw la sant loolu ay caaxaan la loolu amul ci lislaam laa wax amul ci diine alxuraan moo nu ko wax xam ngeen lu am ci diine mooy jaamu leen yàlla ku nekk ci yéen na jaamu yàlla yàlla xamul ku bokk ak sàmba yàlla xamul ku bokk ak demba dafa am benn xale bu góor bu tudd Ali kan mooy papaam Xuseyn kan mooy yaayu Xuseyn Fatima kan mooy papaay Fatima Muhammad kon xale boobu lanu yonent bi la ah Ali la tudd Xuseyn mooy papaam Xuseyn kan mooy yaayam Fatima Fatima kan moo ko jur Muhammad xale boobu dañ ko fekk ci keppaaru Kaaba gi mi ngi julli ba dëbi jëbi deretal ñuul ko oom yi ñu ngi ñuul ko cati tànk yi ñu ngi ñuul ko bakkan yi nu mu ñuul ko ndax sujjóot yu yàgg ñu fekk ko muy jooy ñu ne ko zeynil abidin ali ibnu husayn yow yow taaru diine yow ali doomu husayn looy jooy mu ne benn aaya alxuraan laa jàng léegi rek ci kaamil bi moo ma tiitloo ñu ne ko ban aaya la mu ne faysa nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu nu walee buftu bi ba ñëpp dékki kenn du laaj koo bokkal kenn du laaj ko bo ana ñi bokk ak yonent bi ana ngeen ana waa kër yonent bi loolu kenn du ko wax yawmal xiyaam ana waa kër Ali ana waa kër Fatima kenn du ko wax te mu ne man bu ñu laajtewul kenn du xam lu ma bokk ak yonent bi te yàlla nee na askan kenn du ko laaj yawmal xiyaam xam nga Sénégal tey bu ñu doon séddale dara dañ naan ana waa kër ana waa kër ana waa kër ana waa kër kër diw nag amul ci yàlla kër diw xam nga yàlla lu mu xam ana sama jaam yi gis nga yowmal xiyaam bu ñuy àtte sax suratu yaasin jàngeen ko pour yàlla àtte ñu bon ñeeg ñu baax ñi dañ naan wamtaazul yawm ayyuhal mujrimun ana ñu bon ñi ñu ne ñu ngi nii ñu ne génn leen ci biir ñu baax ñi ñu bon ñi taxaw na le ñu baax ñi taxaw nii jeex na dañuy yaakaar ne benn malaaka day ñëw naan diw anamu te taxawal nii diw déedéet yàlla danaan wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun eh mbooloo mi lay xool rek ne leen eh yéen ñu bon ñi génn leen ci ñu baax ñi ñu bon ñi déplacé wu taxaw fële wallaay xam nga luy am muy ñaari mbooloo ñu baax ñaa ngi nii ñu bon ñaa ngi nii yàlla nee na wa duri ba baynahum bi suur rek ñu dóor benn miir ci seen diggante allahu akbar kun fa yakun miir bi taxaw ñu séparé leen ñii ñu ngi ci yërmande wa zahiruhu min qibalihi al azab ñii ñu ngi ci mbugal benn miir moo leen séparé ñii ñu ngi bànneexu ñii ñu ngi ci mbugal kon ku yebo jaamu yàlla rek moo la mën a musal ëllëg bokk ak ma sàmbaak ànd ak ma demba bokk ci mbooloo diw ak am nañu bokk ci mbooloo yonent bi te ñu ngi safara kon bokk ci mbooloo amul importance bokk ci dëgg moo am solo mbokk yi fa lamma istakmala aafiyatahu yunus bi ko yàlla dencee ci àll boobu ci xur boobu ci montagne yooyu ci garab yooyu génne ko ci géej googu yunus làqatu foofu ba wir raddahu llahu ila qawmihi yàlla womman na ko delloo ko ca nit ña mu meroon gedd bàyyi leen fa allazina tarakahum mugaadiban ñamu ba meroon bàyyi leen fa daw yàlla delloo na ko foofu wa kaanu qad xaafu ma anzarahum bihi min al azab ñoom nit ñooñu sax keroog ba yunus ne leen maa ngi dem yàlla dina leen mbugal waxtu sàngam mbugal moomu duma ko fekke mu mer dem moom soo ñaanee da ngay bàyyi ak yàlla rek ñaan nga bàyyil ak yàlla julli nga bàyyil ak yàlla woor nga bàyyil ak yàlla def nga lu baax bàyyil ak yàlla ndax yàlla du ku ñuy poñe naan ko li ma wax foog nga def julli naa foog nga nangu woor naa foog nga nangu ñaan naa fal force nga nangu kooku du yàlla da ngay julli bàyyi yàlla moo yor tamit bu ko neexee mu nangu bu ko neexee du ko nangu su ko nangoo ngëneel la ci moom bu ko nanguwul julli gi nga def baaxul wala jaamu yàlla bi nga def baaxul su ko nangoo rek ngëneel la ci moom moom yàlla tabaraka wa taala ndax bu ñu doon contrôler suñuy jëf pour mu nangu ko ñu bëri kon kenn du la nangul parce que lim lay wax na nga ko def dañ la ne nga def ko nga def ci yitte waaye ni la ko yàlla sante cent pour cent mënoo ko kenn ci ñun mënul def cent pour cent est-ce que kenn ci ñun mën na julli ba pare te doo ci wax dara ci xalaat dara sa xel du génn jàkka ji dañ ma mos a yónnee benn benn film vidéo bu ay dix minutes benn waaye moom ma ko yónnee woon ci sama page Facebook vidéo bi xam nga lu ci nekk nit ñi julli te duñ teewlu dañoo dugg ci jàkk di julli ñu ne allahu akbar ilimaan bay njëkk a génn jumaa ji maanaam yaram yi ñoo taxaw ci jàkk ji mais xel yeeg ru yi génn nañ kii ne allahu akbar génn di lijjanti ji lu mu yóbbu këram kee mu ngi ci marché bay jënd kee mu ngi taxaw ci buntu jàkk ji di woote téléphone ba julli gi desee benn ràkka ñoom ñëpp ñu sëlmal ñoom ñëpp ñu daal di dawaat ruuy daal di dawaat ñëw seere ci yaram yi daal ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ñun ñëpp noonu la ñuy def boo ne allahu akbar rek départ yaa ngi sa kër di waaw sama soxna yekk na reer wala yekkagul te lu naa la fa ay man ma dépasse suba de surtout nag période yi ay gis ku ne allahu akbar si sama xaru tabaski matagul de te yaa ngi julli ay xaw ma fu ma koy jële kañ lay mat allahu akbar te bu ren bu ma tabaskiwul du baax de sami allahu liman hamid ba nga naan asalaamaaleykum léegi julli googu yow loo ci am léegi jënd rek du ma sama doom yi si ma di affaire bi garaaw na yow wala nga julli boobu fu ñu jëm nañ yàlla jubal ah seytaan moo koy def moo bëggul moo bëggul nga am tiyaaba moo tax da lay indil ay problème ci sa julli di la jax-jaxal soo bëggee xe- moo tax dañ leen a boo kàbbaree wala ngay jaamu yàlla ngay fexe nga xeex ak seytaan fexeel ba bu mu la xalaat loo yëfu àdduna xalaat mënul ñàkk mais na jëm ci sa julli gi lu koy baaxal fan nga toll lan ngay tari lii ngay tari nan nga koy taree lan lay wax li ngay tari lan lay firi boo rukoowee ñaata sàbbaal nga def sàbbaal yi lu ñuy tekki soo sujootee sàbbaal ñaan la fa war a ñaan yàlla loolu moo lay dimbali souvent sa xel du génn nga xam ne da ngay concentré wu ci lii ngay def waaye boo bàyyee sa bopp ak seytaane rek seytaane daal lay yóbbu moom Yunus ndeysaan ba mu ñaanee rek dem ne leen maa ngi dem mbugal maa ngi ñëw nit ña daal di moom dem na nit ñi tiit parce que bépp yonent bu yàlla mos a yónni nga taxaw ak say nit ñaan leen rek mbugal day ñëw moom bi mu demee xaarul yàlla jox ko ndigal ni ko génnal Moussa loolu ko yàlla waxoon yàlla ko ne woon génnal mu ne yàlla bu ma génnee Firaw ne dafa may topp de yàlla ne ko bu la toppee ma topp ko Moussa génn Firaw na topp ko yàlla ñëw bi ko firaaw na sësee ci géej gi mu xool gis géej mu gestu gis firaaw na amul fu mu jëm ñi mu àndaloon nga xam ne amuñu ngëm ñu ngi naan kallaa ñu ngi naan innaa la mudrakuun dinañ ñu jot danañ ñu rey yow Moussa yi ni nga ñu ba fii firaaw naa ngi nii géej gaa ngi nii buñ fi duggee lap bu nu delloo kii rey nu walal moom mu am na yaqiin mu ne leen inna maa yi rabbi maa ngi ànd ak sama borom teey leen inna maa yi rabbi lan la lan moo xew yàlla mën na ko jëlal yat bi dóor ci géej gi gis nga ndigal mu jël yat bi dóor ci géej gi yàlla xar géej gi yàlla ne ko ja traversé mu traversé dem ba génn banu Israël topp ko bi mu demee ba génn mu ne day tëj géej gi yàlla mën na ko watrukil bahra rahwan bàyyil géej gi sa yoon nekku ci dafa jàpp ci cat yi ne day xëcc yàlla mën na ko bàyyil géej gi mu bàyyi yéen ndeke yàllaa ngi nam mbir yàlla bira bàyyi Firawna dugg looloo ngi ñëw sunu kanam insha allah ci dars yi di ñëw parce que egg guñ ci Moussa bi mu demee moom Yunus bu gedd dem nit ña daal di tiit ñu tàmbali tuub ñoom ñoom ñu tuub ñuy jéggulu yàlla ñuy sàbbaal gis nga moom dem na rek nit ñi xam ne musiba ngi ñëw nit ñi daal di daw tuub tàmbali di jéggulu yàlla di sàbbaal di jéggulu seen bakkaar yàlla mu ne fa amanu ñëpp gëmaat fa mattaanahum ila hiin yàlla nee na moom dem na xamul mbir changement am na ginnaawam ba mu demee rek nit ña tuub nañ yàlla nee na baal naa leen ba ñu tuubee laa leen baal moom nag léegi xamul lu xew mer na dem na yéeg ca gaal ga mbir mi daal di këpp ci kawam te pourtant yonant la mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wa kaanu miatu alfin yaziduun wala yanqusuun wa qad amanu ajmaun téeméeri junni lañ woon ak lu ëpp tuuti dara wàññeeku wu ci yàlla mu ne ñu gëm ñoom mbooloo ma yëpp yàlla daal di nangu seen tuub ñoom ñëpp yàlla daal di ànd dafal leen jàmm mbokk yi fii la ñuy yem incha allah ba dars bii di ñëw sunu leçon bii di ñëwaat mooy ad durus al mustafada min al qissa mooy histoire yi ñuy tiire leçon yi ñuy tiire ci histoire dund yonent yàlla yunus loolu la ñuy jël mu nekk fukki tomb ak ñett ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu